soxna Diamako Traoré ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay soxna Elisa di la dalal di la màggal di la jox sa wàccuwaay lu bari macha allah. nga yor du union des ASP du Sénégal nga xam ne jamono ji dañoo yëng-yëngal euh, ba ñu dégg leen li nga xam ne euh, bëriwul euh, ci at yi ñu fi tegu yëpp at yi ñu fi nekk yëpp liñ leen dégg bëriwul tey ñu bëggoon a xam lu waral tey ngeen génn. ñu leen di dégg. ñun suñu taxawaay bi tey dara waralu ko parce que dañoo jaaxle hmm. te gëm naa ne bu fekkee nit moom dangaa nekk ci sa réew nekk ndaw hmm. sa président de la république soxla ay ndaw hmm. def ko politique am woote ñëpp daw bàyyi ca la ñu nekkoon ñoo wuy si ne ah wax dëgg fa yàlla ki woote de kenn la ci ñun te bu ñu soxlaa war nañ koo wuy si ñu bàyyi suñu lépp ñoo wuy si ko boobaak léegi ñu nekk ak ñoom di liggéey pendant huit ans juróom-ñetti at ñu ngi bëgg a dugg ci suñu juróom-ñeenti at parce que mois de janvier bi moo koy commencé le ci juróom-ñeenti atam. Mm-hmm. ñu nekk di liggéey volontaire volontaire na boo ko déggee mooy da ñëw di liggéeyal sa réew mais en contrepartie la laajoo salaire mais dañ lay neexal. Mm-hmm. neexal boobu ñu ñuy neexal leer na ci nopp nit ñi liir yi soog a judd sax xam nañ ñu ASP yi fukki junni lañ leen di jox par weer. Mm-hmm. léegi ñu liggéey pendant juróom-ñetti at yoo xam ne lépp ci ay digaale lañ ñu def di ñu dig chaque année. dinañ leen dugal fonction publique dinañ xool ba fexe kenn ci yéen bu soobee yàlla dinañ ko jox liggéey boo xam ne dana assurer avenir am yaakaar googu ñu doon dundeek ñoom ba tey fii ñu yegg si dégguñu dara frees daal di xuddees ndax wax dëgg fa yàlla booy liggéeyal nit ba contrat waram jeex sax yaakaar naa war nga ko aviser na ko ah weer bii de bu deewee sa contrat daa war a jeex namm nañu ci yéen def leen nangam ak nangam ak nangam kon continuer leen liggéey wala ah dem leen ngeen toogi seen kër ba li ñuy lijjanti sotti bu ko defee ñu soog leen a woo mais ba fii ñuy waxee ak du kenn ku àdd ci suñuy autorité wax ak ñun. du kenn uh-huh. jugewul ci suñu directeur général. jugewul ci suñu ministère de l'intérieur jugewul ci président de la république moom mi nga xam ne moom moo ñu créer uh-huh. ci say kàddu soxna si maa ngi la dégg nga naan eh, juróom-ñetti at muy huit ans eh, ndax huit ans yooyu le contrat bi moom la euh, stipulé maanaam ci la leen tënk wala dafa am ay dagg-dagg ñu koy yeesalaat di ko yeesalaat ngeen toog di déglu ba huit ans yi fekk leen fa. waaw contrat bi dafa amoon ay dagg-dagg. Hmm. parce que bañ ñuy jël dañu ñu wax ni dañ leen di jël ñaari at. Hmm. essayé leen. Hmm. bu seen liggéey ñoŋee. ñu dolli laata leen yeneen ñaari at bu ko defee ñu bàyyi leen ci kaw wax jooju la ñu engagé woo ñun ñëpp dugg ci ba ñu liggéey suñuy ñaari at mu jeex ñu xam ne liggéey bi jaar na yoon ñu dolli ñu yeneen ñaari at ba ñaari at yooyu di jeexee ñuy toog di xalaat ne ah wax dëgg fa yàlla ku la nekkal ci naaj bi di la liggéeyal boobaak léegi te yaa ngi ciy gis ay avantage xanaa xel nanguwul nga bàyyi ko mm-hmm. ba ñuy toog di déglu ci déglu boobu à notre grande surprise ci le président de la république waxee ni yokkal nañu deux ans à titre exceptionnel mm-hmm. muy yeneen ñaari at fekk si ñeenti at yi muy juróom-benn at mm-hmm. ci biir ñaari at yooyu bañ ko liggéeye ba mu jeex nii la woon rek ñoom daal ni dañoo yab ASC ASC yi dañuy liggéey ba seen contrat jeex ak lu mu ci mënti doon duñu mës a am préavis mhm. dañuy toog ba ba mu jeex tàkk rek ñu continuer di liggéey ba ñuy jékki-jékki di ñu signalowaat ay engagement ba six ans yi jeexee ñu ñëw signalowaat ñu engagement un an ci biir un an yooyu ñu ne dañuy xool fexe ba ASB bu ci nekk ci moom rek ci boppam rek dinañ ko jox liggéey boo xam ne dina ci gis boppam ba dootul xalaat dara ci ëllëgam ndax yaakaar dafa tas tey yaakaar dafa tas yaakaar dafa tas parce que Macky Sall mi nga xam ne moom mooy président de la République du Sénégal. Mhm. su fekkee dafa def politique am ne dafay dafay xeex chômage ci Sénégal. Mhm. créer ay emploi ñun ñu nekk ay jeunes yu njëkk créer ci emploi muy ASP yi mhm. ASP de sécurité agence de sécurité de proximité dafa waroon a fexe ñongal agence bi de telle sorte que doo doomu réew yooyu fa nekk ñuy ay ndaw di fa liggéey ñu war caa mën a gis seen bopp ñaareel bi yaakaar dafa tas ndax lan wax dëgg fa yàlla munoo def sa première politique emploi ba pare nga koy bàyyi muy naxasaay naxasaay bi mooy nga liggéey loon juróom-ñetti at ñuy dugg seen juróom-ñeenti ba tey xamuñu seen ëllëg fan la féetee. Mm-hmm. Mm-hmm. ba euh, pare ci biir loolu. yaa ngi def ay politique ne da ngay créer ay emploi des jeunes. kon gis nga ne daal euh, waxam ak jëfam dafa waroo. dafa waroo parce que bala ngay créer ay emploi des jeunes te nga yor fi ay jeunes yoo xam ne yow xas nga leen a créer ba pare ba mhm. ñu commencé di la liggéeyal ba ngay dundee yaakaar ndax damaa ragal ne bu su fekkoon suñu taxawaay baaxul kon agence bi tasoon na bu yàgg tasoon na bu yàgg parce que ñun dañ ñoo utiliser ci différents services maanaam ci service yu ute yu bari sax ñu ngi ci maire yi ñu ngi ci infrastructure yi ñu ngi ci préfecture yi ñu ngi ci police ñu ngi ci gendarmerie ñu ngi ci sax xoolal cité euh, euh, cité privé yi Mm. cité privée yi maanaam ay contrat yoo xam ne suñu agence bi da koy signé ak ay cité yoo xam ne dañuy soxla ña leen fa nekkal ñun ASP ñu ñu yóbbu ñu fa teg fa ñu leen fay liggéeyal mm. kon amal nañ leen njëriñ te wax dëgg fa yàlla bu doon la ñuy liggéey tamit rafetul te ñoŋul woon amaana gëm naa ne kon duñ bu ñu dundee ñaari at yi njëkk la ñu doon tas agence waaye lu ñu téye depuis juróom-ñetti at bay dugg dugg dugg juróom-ñeenti at mooy wane ni lañ leen rapporteel ñoom joxuñu ko delloo ñu suñu njukkal ndax yëngu-yëngal gi dafa firnde ne bëggatu leen dellu ca la ngeen nekkoon. waaw yëngu-yëngal bi dañoo doyal sëkk ca lañ nekkoon bëggatuñu ak ñoom benn contrat bu ñuy yokkal. lu ngeen am ci ñoom léegi. waaw la ñu bëgg mooy ginnaaw président de la république conseil des ministre bi passé le 20 janvier 2021 moom moo taxaw gémmi ci gémmiñam wax ni damaa bëgg ñu ñoŋal mbirum ASP yi def ko kuréel goo xam ne dina moom boppam. Mm-hmm. Mm-hmm. may yokkal ñi ci benn at pour ñu mën a liggéey loolu bu fekkee ni nag ginnaaw doo ñu doon na lu waxu président de la république ñu nekk ci doon liggéey boobaak léegi bu at bi jeexe dafa doon loo xam ne dañ cee war a sóobu waaye waratuñoo toog di xaar na xam mën naa nekk wala mënatul nekk. d'accord kon yéen bëggatu leen benn benn benn contrat yen fu mu nekk nii daal euh, soit ñu jël leen fonction publique soit daal mbiri tas. waaw soit ñu jël ñu fonction publique wala ñu def ko pérennisation de l'agence bi comme ni ñu ko waxee moo euh, wala mbir mi tas ñun léegi bañatuñ ci dara xoolal bañatuñ ci dara fu mu yem neex fu mu yem neex bañatuñ ci dara ndax dañ ne olof Ndiaye dafa ne boo déggee nga ne nit ki doo ko topp dafa fekk fa ngeen jëm moo soriwul. d'accord wax dëgg fa yàlla nag juróom-ñetti at ku la ko muñal ci liggéey nga di ko fay lu néew ci ci ci ci payoor. Mhm. te du payoor sax nag nee nañu ab neexal la ndax fukki junni la ñuy jot te loolu umpul kenn ci biir Sénégal. Mhm. wax dëgg fa yàlla jot na nag ñoom ñu gëstuñu ndax ñoom ñii ñu jiite dëgg rek a neex yàlla tey jii. Mhm. ginnaaw yàlla bu fekkee ni ci suñu barke ñoom la ñuy dund parce que ñun ñoo nekkal ci naaj bi tey jii ba ñu mën a ñoom tëdd am xel dal benn. Mhm. ñaar tey ñun ñoo leen nekkal ci naaj bi tey jii ba ñu mën a dawal ay oto am ay dëkkuwaay ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci naaj bi amuñuy oto amuñuy dëkkuwaay mënuñu faj soxla yi dara ci suñuy biiri njaboot. Mhm. xam nga ni dafa mett ASP bu fi gis muy dem. ma ngay ma ngay ma ngay xarmat ca wetam. Mhm. ndax ndax mën a dund te tàllal loxo. d'accord wax dëgg fa yàlla ñoom waroon nañoo rus lool ta jomm ko suñu condition de vie dara baaxu ci moo xam ci santé bi la moo xam ci transport bi la moo xam ci ci payoor bi la dara baaxu ci dara dara dara baaxu ci. Mhm. ndax condition yi nga tudd fii muy contrat yu jeex yi li leen dal yéen euh, maanaam li leen dal yéen ASP yi ñu nekk ci première promotion bi ak deuxième promotion bi yëpp ñoo bokk àtte. waaw ñun ñëpp ñoo bokk àtte wax dëgg fa yàlla bu fekk fekkoon ne la ñu waxoon dañ ko doon respecté ci premier promo bi lañ ko doon respecté mooy ba ñu liggéeyee ñeentaat daal di ñuy bàyyi ñu dem. Mm. jëlaat ñeneen daal di leen liggéey loo mais ñun ba ñu liggéeyee suñu ñeenti at balaa suñu ñeenti at di jeex ci la ñu recruté yeneen deuxième promo. Mm. te ñooñu ba ñu seen ñeenti at dañ leen yokkalaat seen ñaari at. Mm-hmm. kon ñu ñëpp ñoo yem benn maanaam gaal bi daal ñu ñëpp ci bokk a nekk. waaw bu déggee ñun ñëpp lay diiga waaye may dellu nag di leen fàttali ñoom autorité yi. Mm. yi ñoo ngi jooy banque seen loxo ne duñu liggéey ñetti fan mhm. waaye suñuy superviseur mhm. suñuy contrôleur mhm. suñuy CUD bu ñu yaakaaree ni lii ñuy def ñun suñu propre intérêt la ñoom ñu ngi nax seen bopp ndax nañu bàyyi xel ni ñoom tamit ci biir gaal gi la ñu nekk même monsieur le directeur sax général de l' mi ngi ci biir gaal gi ndax moom ay waxam lépp benn kàddu la woon man maa premier man maa nekk première ASP bi balaa ñeneen yi di ñëw kon bu gaal bi diigee ne leen wóor ni ñun ñëpp ñun ñooy ànd diig kon nañu fexe ñu xool naka la ñuy yëkkatee gaal bi ñoom ñi nga xam ne ñooy suñuy njiit boobaag léegi du ñoo ngi ci grève bi te déggaguñu kenn ci ñoom ku yëngatu wala ku wax. dañ daan dégg ñu naan dix mille ASP ndax euh, nombre boobu nga xam ne ñu ngi koy yëkkati boobu ba tey moo fi ne. nombre boobu dañ ko doon wax ca tàmbale ba. Mm. tàmbale ba ñun premier promo bi la ñu waxoon ñoo nekkoon dix mille. Mm. mais ñu ba ñu defalee benn at balaa ñoo dugg ñaari at daanaka am na ñu génn Hmm. am na ñoo xam ne dañoo bàyyi. Hmm. am na ñoo xam ne dañoo euh, dem ay def concours police ak gendarmerie ñu réussir ko pénitence eaux et forêt ñëpp ñu daal di dem. Hmm. léegi ñun ñu fi des ñoo nekk di góor góorlu di góor góorlu ba tey jii ñu nekk si juróom-ñetti at deuxième promo bi ñu ñëw fekk si daanaka léegi matatuñu diime daanaka bu ñuy wax rek six mille ASP dong ñoom ñoo fi des. waaw six mille ASP. bu ko ëpp li tamit yéesu ko. ngeen tàmbali benn plan d'action dama bëggoon a xam rek ndax plan d'action bi c'est national yéen ñii di waa dakaar ni ngeen koy defee noonu la seen i ñooñu yi nekk ci yeneen diwaan yi di ko defee. waaw macha allah plan d'action bi dafa bokk 72 yi. waa plan d'action dafa wër Sénégal wërngal këpp hmm. parce que ñun ba ñuy dajee di wax tooguñu ñun kase waa Dakar waxtaanee ko quarante cinq département yi nekk Sénégal ñoo ko bokk waxtaanee ko ak quatorze régions yi hmm. départemental bu ci nekk rek am nga benn président amical bu fa nekk hmm. ñun ñoo bokk waxtaan bi toog waxtaanee ko ba trouver terrain d'entente ne kat wax dëgg fa yàlla ginnaaw demee na nii nañu njëkk a dóor soixante douze heures xool seen réaction wax ak ñun wax ñu lu ñu dégg alhamdulilah bu ñu réagir ñu dem ci plan A ak plan B ak plan C. kon plan yooyu lépp am na. A B ba C fi nañ ko ba mu ñor ba toog fi mu toll nii dañuy xaar rek la ñuy lijjanti bu dee sotti na ñu bàyyi lépp delluwaat bu dee sottiwul it tamit aussi dañuy dàbbali suñu suñu suñu grève yi. Mm-hmm. dañ koy dàbbali dem plan B dem plan C ba keroog nag yàlla di dogal ñu ñuy wax waaw góor. gañe ngeen ñëw leen ñu defal leen li ngeen bëgg wala ñu naan déedéet wax dëgg fa yàlla na fi mbir mi yam tas nañ ko mu yam ci ñëpp. kon daal ça passe ou ça casse yéen daal foofu la tànk yooyu ngeen taxawee jeex na sax. Mhm. tey ndax yéen ñëpp ànd ngeen ci manko gi. waaw manko gi nag macha allah mënuma wax ni am nañ ko à cent pour cent. Hmm. parce que ànd boo gis rek bu noonu lay demee. damay faral di wax samay biir wax ni bu ñëpp yemoon am ñu jedd seen cër. Mhm. waaw wax naa ko sànq nee naa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy gindi mbindeef ba mu wootee ay propre mbokkam ñoo njëkk a weddi waaye ba mu demee gàddaay dama ragaloon ñi mujjee bañ ñëpp mujj nañoo nangu te loolu moo nekk ci ñun. Mm-hmm. ñii mujjee bañ ñëpp daañu mujjee nangu fekk si ñu parce que xam na ne lii ñuy xeex nekkul xeexu intérêt bu ke pour kenn ci ñun. xeexu intérêt général comme la ñun ñëpp ñoo ko bokk tey jii lu luñ cey mën a gañe ñun ñëpp ñoo koy bokk kenn du ci ëpp ëppale kenn moo tax lu tax ma laajte la mànkoo gi dama bëggoon a xam njeexital euh, gi lépp euh, mot d'ordre ci euh, liggéey gi ndax gàllankoor na ko ndax seen ñàkk xëy fës na ci service yi ngeen di liggéeyee. waaw suñu ñàkk xëy macha fës na ci service yi ñu doon liggéeyee yépp wax dëgg fa yàlla ndax mbir mi yamul Dakar rek. Hmm. région yeeg départemental yi ñëpp la. fépp ASP yi fa nekk dajale na seen unité départementale ñii def nañu conférence de presse am na ñuy def tey am na ñuy préparé comme ñun ñi nga xam ne waa Dakar suba incha allahu rabi la ñuy def suñu conférence de presse à partir de huit heures du matin. liberté moom teel na di soxna si sept heures. waaw parce que bu ñu waxee loolu xam nga sénégalais lañu ne ay sénégalais lañu. Hmm. ndax boo leen waxee huit mën nañ fa ñëw dix heures. Hmm. mais boo ne leen sept heures lu mu lu mu naaj naaj naaj huit heures dana leen fa fekk neuf heures nga mën a def sa conférence de presse. d'accord looloo tax bu ko yàlla dogalee incha allah suba liberté six lañ koy defee ci siège force frappe ñu ngi cay woon nag bépp ASP. communiqué da ngay jaar commercial nag. waa incha allah dinaa ko jaar. <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax soxna Diamako Traoré. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Elisa man it maa ngi lay jaajëfal lu bare bari macha allah rabi wax dëgg fa yàlla jàpp ngeen ci combat bi. Mhm. média yi ñoo tax tey jii suñu affaire bi réussir parce que bu dul woon yéen amaana suñu doole tolul woon foo xam ne mën nañoo taxaw di waxal suñu bopp ba autorité yi di ñu dégg wala la monde entier di ñu dégg te suñu 72 heures yi ñu décrété wax dëgg fa yàlla jaar na yoon de telle sorte que yegg na sax Europe. ndax man démb ñu ma woo Europe ñëpp samay collègues yi fa nekk samay promotionnaire yëpp ñu may naan ma dégg nañu seen grève bi macha allah kon ñun loolu lañ ci doon wut te loolu lañ ci sàkk woon ñuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu ci ndam bu soobee yàlla jërëjëf jërëjëf